ayca tey nag sëñ bi laa set si xam naa ne moom gars yi xàmmee nañ ko waaw euh, sëñ maam Asi mbay ah euh, mu mu baax nag trop trop trop trop sëñ bi nuyu nañ la. Euh, alhamdulilah Mbaye ñu ngi lay fay. di mhm. fay mboolem internautes. Mhm. yi lay suivre yëpp. Mhm. Ah, ñu ñu daan la gis sa image TFM. TFM religion. nan nga fi duggee woon gisatuñ la nan nga fi duggee woon. waaw xanaa ñu nekkoon. nous woowoon nous sentir ci RFM. ni mhm. daan fa ligue. kan la voir juste wala kan. Euh, man euh, RFM Alsan Samba Diop. moo la fa indi mhm. bon avant alors Abu Bilal lan fa def. Abou Bilal ah, ah, man take wa wa, affaire yi ah. mhm. après Parcours.

enregistré mhm. def yëpp wax dëgg yàlla mhm. ñu nekk fa nag di fa def tam tous bu am solo muy al askar ñëpp bëgg ko mhm. eh, gannaaw loolu sax ci laa génne xam sa tabia daanaka loolu moo jaay TFM religion ah, parce que TFM euh, religion am na lu yàgg mais xam sa tabia moom bi mu amee vraiment nit yi dañ ko ràññee et puis doon ko topp bu baax nag te loolu ñoom leer na leen ci téléphone bi la laa woo rek waxoo contrat bi ni muy doxee waxoo ne dinañ ma fay waxoo la moo tax ñu jékki-jékki rek dem te signé woo contrat defoo dara. waa xam nga ñun su man bokk sama concept def ci bokk. Ah. lépp lu jëm ci diine. Mhm. du ci fayeeku. Mhm. ah, ah mais mais loolu moo tax nga bàyyi lan moo tax nga bàyyi gisatuñu waaw maa ngi ñëw ah. dañu jàngal diine. Mhm. Euh, jàpp ni lépp luy jariñ jullit ñi. moom li ci ëpp solo. mooy ñu def ko.

xam nga ñun man bi may ñëw foofu. Mhm. ñu sentir ma woo ma dama mhm. ñëw. Mhm. di jaamu yàlla. ci li ñuy def. muy xam-xam di loo xam ni yëg nañ ni jullit ñëpp dañu ko soxla. ñu di ko def. waaye nag euh, euh, ànd ak loola lépp. ñun du payoor. parce que ñoom mënuñu nu fay. man Youssou Ndour mënu ma fay. ku moom mënu ma fay. parce yàlla mi ngi may defal sutura. alhamdulillah ah. waaye itam.

man jàppuma ni mhm. kenn ci ñoom mhm. <laughs> ñee naa la mhm. jàppuma itam ni kenn ci ñoom mën na ma fay uh-huh. ki am sama fay mooy yàlla subhaanahu wa taala uh-huh. te mi ma koy jox wax dëgg yàlla mu uh-huh. yiw gi may sàkku ci li may def waaye itam di am loo xam ni maa ngi koy loo wax dëgg yàlla uh, ñu ñu jékki-jékki uh, bi ngay dem nooy demee da nga woo Maaw Cissé ne ko bàyyi naa wala da woo kii wala da nga woo keneen beneen directeur ne ko bàyyi naa waaw man mës naa sax wax ni ko bàyyi fekk boobu am na lu ma xawoon dérangé mhm. ma ne dafa ba ni ma musuma gis ku wax fii bàyyi mais fekk boobu ñun comme ni la ko waxee su ma man di def dara mhm. dama koy def def avec cœur ouvert mhm. saint. ci dërëm seentuwuma ci je dërëm parce que li ma jàpp sama pay man yalla moko amé donc ma nekk fa nag diiraa lolou li man émission bi ma def limi dougal ci téléphone kenn xamul numu toll kenn xamuko té ñom xam ko donc ñu nekk fa pendant des années di len ba ci IGFM man ma don ku nekk RFM di nekk ci TFM religion en même temps di nekk IGFM di gërëm bu baax nak Daouda Daouda nga xamni Daouda

def seeni pexe. Uh-huh. ba tëj ko. Uh-huh. te loolu. Uh-huh. Youssou Ndour na xam ni. Euh, ameel na ay góor. ak yoo xam ni. même suñ ko ko laajul. loolu du nekk luy niil. xam nga nga gis nit di dox ba yàgg. ne ci situation yu munul wax. fekk am na lu ko waral. parce que tey. même bu fekkee nit ki moo ñëw ci yow xam nga moom mës naa ko dégg sax mu way way boo xam naan nga di ma liggéeyloo ba xëy ni ma dàq naa la. Ah. ndax lan aw ma këyit mhm, mais nag bon ñun ku mel ni man. Mhm. sox du du ku à besoin. Mhm. ci loolu mais. am ñu bari ñoo xam daan nañ fa ci difficile. Euh, difficulté yoo xam ma xam ko. am na xam maa leen daan yóbbaale. am bu dama leen di donc ñoom bu fekkee tam yëgunu ko mhm. wala jàppunu ko mhm. loolu lu garaaw la mhm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que Youssou mi ngi koy yëg mais Youssou ah, parce que y a des gens yoo xamante dañoo bëgg turu TFM rek dem xam nga ñu utiliser leen mu neex leen ba ñu dàq ñu ñu ba utiliser leen ba mu am ay bàyyi leen ñu dem est que bëgg waaw mais xam nga loolu dafa mel ni ku ñëw sama kër gi naan ma nit ñëw na fi yendu fi añul naan ndax man yëg naa ko sëñ bi loolu wax ju yàqu la. Mhm. wax ju yàqu la parce que tey ku yow structure bu toll ni Groupe Futurs Médias yow mu leer la yow mbay nga newoon fa. Mhm. nga xam ne ña fa am këyit ñi fa amul këyit ku ëpp junni yoon. Mhm. te ña nga fa. nga xam ni amuñu pexey dem. dem man damaa damaa fekku. yow da ngaa fekku dem. damaa fekku dem waaye ñun dañ noo woo ñu dem <laughs> dégg nga te nekk i xoolal E-Média. muy groupe bu bu bu dynamique. groupe boo xam ne ñi ko yor ay nit yu charge yu mm-hmm. responsable la mm-hmm. gis nga man bi ma fa ñëwee ñu wax ma ma wax leen sax du ma fayee mm-hmm. wallahi kilifa dani ma fii ku fii liggéey dañ koy fay xam nga loolu uh-huh. mooy mooy mooy nit ku am Euh, nit ku respecte nit. Ah, nit ku am wallaahi way man bi may wax ni ci diine. Mhm. duma ci fayee même Aline mhm. dina ma neex. Mhm. Euh, Aline Ndiaye boobu. bi may tourné Abu Bilal. Abu Bilal. Uh-huh. bi ma ñëwee ni ko man diine duma ci fayee. dani ma man nag li nga ciy tourné yëpp dama la koy fay. te noonu la ko defee. léegi Boubs moo la kontaan wala man Alsaan moo ma woo. Ah, waaye bi ma ñëwee itam. Boubacar Diallo man. Mm-hmm. Euh, damay wax ni ku ko gën mm-hmm. ci réew mi mm-hmm. gisuma ko ci xol ci jikko ci ci ci mbaax ci oyof ci nangul nit ci nangoo jox nit cëram loolu man gisuma ko donc mais nag réew mi daf fi am ñoo xam ni ci seen doole dañ ciy foowe ay nit dañ ci utiliser ay nit dañ ciy def lu leen neex te nag malheureusement du mujj fenn ah. waaye nag yàlla moom mi ngi fi des ah gis nañ la mais bi nga demee gis nañ la après nga dem émission bi nga xam ne ngoonal la maanaam da ngeen juboo wala da ngay waaj dem émission bi lu ko andi non ñoom ñoo ma woo man dama mm-hmm. toog même Tivaouane la ma fekk mm-hmm. ñoo ma woo ni ma dañu bëgg nga ñëw mm-hmm. ngoonal gàntu woon naa sax parce que aussi sa moo ma woo

non man soxlawu ma leen suñ ma wowoon sax du ma dem. Ah. man du ma façon boobu sëñ bi. Ah. déedéet. Ah. man euh, soxlawu ma leen. Mm-hmm. waaw parce que la ma fa woon def. Mm-hmm. def naa ko fa. Mm-hmm. jóge naa fa maa ngi E-Média. Uh-huh. Euh, maa ngi ci rajo bi di def émission bu mag. bu uh-huh. ñuy wax est-ce ñoom fekkoo fa ay oustaz Modou Fall ay oustaz Pape Anne ñu gën a kii ñu yenu bër bi moo tax ñu tuutal la. est-ce que du loolu waaw mais xam nga parce que ñooñu tamit dañuy daw alir bi ñuy daw yow est-ce que attan nga loolu <laughs> xam nga ñun doxuñu ci ay buzz ak yooyu mhm. man Papa xam na ma bu baax mhm. lu jiitu TFM mhm. euh, Modou Fall itam fekk na ma fa bi ma gisee itam euh, nuyu ma la def ni ma vraiment li nga doon def sentir naa ko la preuve <clears throat> tey li ma doon def ci koor gi muy Abou Bilal musul jeex te Papa Hann woowu Mhm. ni ma set naa la affaire bi neex na nangam nangam. Mhm. <coughs> hein? Mhm. ta après gis nga la cinq minutes de Pape An. kon nga xamni lolu loolu <laughs> nako donc lolu mo ci nek man euh, nekkuma kuy concurrence. sama domaine ku ci fek xamni <laughs> bokku nu te fin wara jangé a jàngee lan jànge def lanu def. donc lolu jeex. Euh, léegi euh, euh, ban genre dégg naa da nga wëlbati affaire yi nekkatoo oustaz da ngay da ngay waa si am xam-xam. Hmm. si xam-xam nga ne ni nga jëm man loolu ci laa mës a ne. parce ah, que xam nga xam nga xam-xam. Ah. dafa am ay ay ay ay ay branche hmm. dafa am koo xam ni su jàngee alquran ba pare. Hmm. jàng sharia ba pare. danaan man lii laa opté. mooy ñëw nekk. قاضي ولا دفق دف شريعة الإسلامية دي أوبي كومين ني نكوي غيسه ني ني توك تي مسالا غي ام ньо خام بون باري دا فام برانش تي نيك يو خام باتين لا تود موي شيخ الاسرار من لولو لا مسا دف تا ميم ني ما جانغاندول خام نان ني لولو موم كين موسوما تي من لا بروف تابع بي ما تي دف بيما كوي njëkkee waxtaane mhm. am na ñoo xam ni gi oustaz dañ doon wax kii xam-xam yu muy bees yu muy indi mhm. fekk lii ay siècle la mhm. xam-xam la donc bi ma ko defee aussi addina bi yëpp xam nañ ni lii xam-xam bu leer la te ku géejuwul mënu ci wax am ah, yaa ngi yaa ngi nit ñi ngi lay seeti nga leen di defal seen seen aajo mais sëriñ bi aajo moom man ñi may déglu xam nañ ni ma ci kenn wallahi gannaaw bu yàlla wéyee. ah est-ce que duñu mosoo est-ce que duñu def affaire dóor parce que jamono jii sëriñ si ñu ngi leen di déglu fu ne. waaw xam nga loolu sëriñ si leen affaire jigéen si ñu ñu leen bett ak comme coow lu bi am fii fan xam nga. waaw mais xam nga euh, euh, ah. àddina sëriñ bi. Ah. Mm-hmm. Euh, nit du ëpp nit. Mm-hmm. waaye cadre xam-xam. Mm-hmm. ak teg ko ci yoon. loolu moom man duma ko. du ma fi nekk di ci wax mm-hmm. ñi may jëflanteel xam na lu ah. gis nga euh, xam-xam mm-hmm. dafa am lu mu laaj mm-hmm. mooy xam jëf xam nga loolu bokkul ak toog man mosoo ma dégg nii ci rajo mbaa ci télé ma toog naan ku ñëw ma faj lii ku ñëw ma def uh-huh, lii uh-huh. non ñun uh-huh. ñun loolu ëpp nanu ko li nu xam mooy ñëw def xam-xam man lii may def muy tabia mhm. am na ñu nekk ba Fongolemi mhm. am ñu nekk Angleterre am ñu nekk Suisse di ci jariñu mhm. te soxlawu ma ñu xam ma soxlawu maa jëflante ak ñoom lan moo am solo mooy ma yee leen ci àddina ba xam ne xam-xam am na naxe am na soo gisee léegi àddina doy waar mooy da gis koo xam ne euh, moom yàlla dimbali na ko mu am lu dul jeex di gagné vie woom xëy takk soxna daanu ñu naan ko raplaak dan laa liggéey mhm. ak laa nangam fekk c'est faux mhm. dafa boole ñaari élément yu warta ànd mhm. loolu nag man sama responsabilité mooy ma toog fii leeralal ko loolu waxuma sax moom mais ki amagul soxna déggee ci xame ci bu ëllëgee mu ñëw buy takk soxna mu xam ni kat ndekete euh, euh, anaasilul arbaa yi ñeenti la am na yu mën a ànd am na yu waxta ànd loolu yeete boobu sëñ bi benn kilifa gu mag daf ma woo recevoir ma ndeysaan ceral ma daal ni ma yow émission bi ngay def dañ ko war a synchroniser